ne réew mee koy seetaan li dem réew doomu Pikine ñëpp ngi nii taxaw lay bàyyi ñu waaw ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di nuyu wul du maamin yëpp fépp fu seetu Cheikh na Cheikh nekk rek. bu baax di jox sa cër ak sa wàccuwaay. waaw baax na baax na. waaw ñu ngi ñu ngi yokk jégalu la waaw ku ci nekk a xol bi ngay demee rek moo tax mais ñu ngi yokk jégalu ah waaw di nuyu képp ku teew fi di doomu Pikine maa ni nuyu di nuyu sama mbokk ñu yi nga xam ne teew fii mais su ma demee ëmbal seen rek dafa yóbbaale ñëpp parce que moom mooy suñu mag ñu koy nuy bu baax di nuyu autorité yi toog ñu teew fii yëpp ku ci mel ni Isaaxa ku ci mel ni Ousseynou sunu grand chef de quartier fi ñu nekk nii di rakk ci Thierno Ndom Ba ñu koy grand Ibrahima maa lay nuyu tey tey ci kaw yëpp nekk boo ñaan nuyu na la jox la sa cër ak sa wàccuwaay ak doomu Pikine bi fi ne doomu Pikine yi déplacé wu ñëw yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar di jox seen wàccuwaay ñaar de na mobilisation tey bii nga xam ne point ko gis nan nga ko gisee waaw bu baax rek Boy Niang fi ci Pikine dañ gën a wan responsabilité bi ma jox muy moo war ko yóbbu di leen xeexal fu mu mënti doon tey wane nañ ma ko dama ciy sant yàlla bu baax a baax di leen xam ni borom jom la wax bi borom fula borom allah lu métti léegi Boy Niang Boy Niang ku ne xam na ni Boy Niang ku ne xam na ni yaa ngi jëm ci bés bu mag ku ne xam na ni yaa ngi dajeeg un très grand champion keroog bi ma ko seeti jee dégg nga li ma wax ak moom boo Niang ñu gis ni keroog sa adversaire dafa wàññi poids ba mu bari pare pour doon benn athlète pour mën a jàkkaarloog yow pour xeex ak yow est-ce que yaa ngi pare loolu est-ce que yaa ngi bàyyi xel bés boobu est-ce yaa ngi bàyyi xel sa adversaire waaw sant yàlla bu baax a baax ñun moom boo xoolee ñun focalisé wuñu la fekk dafa yokk poids wala dafa wàññi poids ñun lu ñu focalisé muy lu liggéey ak lu ñu loolu lañu focalisé te loolu liggéey nañ bu baax a baax a baax ànd nañu ñi ñu war a àndal liggéey nañ nu ko waree te bu jour ba incha allah dañu war lu ñu liggéey ci kàttanu yàlla waaye le fait que moom dafa wàññi poids wala dafa yokk poids loolu moom la concerné ne xam na moo ci ko ko xool waa loolu wax ju yàqu la loolu ay waxu toog te néeg la añ ba pare teg ataaya quoi loolu wax ju yàqu la man Boy Niang bu nekk xale jaar nu mu jaar ci làmb ñu mu bëreel am fula am ñu nga wax da ngay puus la ngay wax loolu neex rek ñun kenn duñu puusoo ñu ñoo xool heure bu ñu neex ñu puus bu ñu neexul duñu puus ñun ay doom pigit lañ da nga ak ku mën ci doon waxee waxee dañoo jël ñaari avance waaye ma reeral leen yéen presque dama jël ñaari avance waaye benn combat la booy ñaam am bu déggee ma wax loolu mooy dafa man benn combat la am benn combat laa nekk di préparé te benn combat moom ma ñor te li ci kanam raw di bët dama bëgg ci kàttanu yàlla moom laay ñaan suñu borom moom yor ndam ma ñu ndam mais dama bëgg bu combat bi jeexee mën a tabaati bu ñu laalee ñu jëflante moonu làmb ñu gën a xam kan mooy booy ñaar moonu làmb ak si Boy Niang maa ngi lay nuyu ku ne xam na ne dimanche yow yaa war a dalal tafaati ndax yaa ko gën a jege stade bi naka ngeen waajalee si fair play ku ne xam ne làmb ji jamono ji mu demee naka nga waajalee ak sa supporter si fair parce que yow yaa la war a dalal tafaati bi parce que yaa ko gën a jege stade te ñëpp xam nañ la si fair play waaw jàmm rek jàmm en tant qu'ambassadeur pour la non violence mais aussi en tant mbër làmb mooy sunu gagne-pain ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay damay woo képp koo xamante ni supporteru Boy Niang nga képp càppaacoli foo mënta nekk ñu ñëw ci yar ak teggin ñu ñoo leen dalal ñu li war a def mooy ñu duy stade bi ba mu fees teggin bu fekkee yëngal wala xeex wala dóor wala bëre loolu ñu bàyyi ko seen mbër ci biir géew incha allah ci kàttanu yàlla mais Boy Niang sa adversaire xeexkat la sa adversaire ku ko xam xam ni xeexkat la seetaan nga digganteem ak Elton seetaan nga digganteem ak Bombardier est-ce que yaa ngi pare xeex boobu ba pare Boy Niang dafa wàññi poids ci combat bi. ma poids dama jël sama poids de forme. sama poids de forme loo xamante ni sama bët lu ma may rek sama yaram def ko mooy sama poids de forme loolu laa am moom laa bëre woon contre Sa sant yàlla contre Lac de Guiers gis nañ ni dafa yokku ma dem indiwaat li ma amoon jël ko téye ko parce que loolu laa moom mooy sama yëf. beneen bi mooy xeex wax naa leen ko. nee naa leen yéen a ngi jiin tafaat leen xeex bi waaye moomu ko. waaw ah, loolu nag waxuma ko parce que dama taxaw fi ngeen def ma ay micro yéen a ngi ci Tapha Tine xeex waaye moomu ko man benn poids yabu ma ku ma am na fu mu fu ñu jaar ma ak yow ak ku mu mënti amu ma difficulté pour xeex ak benn mbër ci arène bi ku bëgg ñu weccoo xeex rek ñu weccoo xeex amul benn problème. mais xeex moom bu ñu ko dee définir xam la mooy xeex précision xam bu baax fooy dóor loolu mooy xeex nekkuma rek damaa yor ay loxo di sànni ay kuréel déedéet damay am précision xam bu baax fu may loolu mooy xeex te yàlla def na te yàlla def na te yàlla def na ba ñu nekk xale ba léegi jàng nañ ko dem ci ABC jàng ko ba mokkal ko sant yàlla bu baax a baax donc Tapha Tine bu bëggee ñu xeex rek dañuy xeex yàlla xam na ko ñëwal moo daan joxal moo daan waaw loolu wax day wax lu ko neex rek bu may njëkkee mooy Paku Lambaay Paku Lambaay ci Pikine la bokk maa ngi nuyu ñoom sa jël sëñ ci faaw ñoom Thier sama grand loolu moom waxtu yàqu la loolu amu problème su fekkee ci sens nag bu ñu xoolee ci làmb Tapha Tine maa ko may sens bu ñu xoolee ci làmb moom a jiitu ci làmb dëgg la waaye fii ñu bëree maa moom maa ko may chance. maa parce que kenn bu ko woon jël fi la ko gars yi bàyyi ma may ko chance bëreeg moom. Ah? ci ci niveau làmb ci niveau làmb. maa ngi sant yàlla bu yàlla yàlla xeeb doole yi. am na fu ma yegg foofu maa ngi sant yàlla. dernière question pour si donc boo xoolee ci làmb man maa ko may chance. waaye may chance ñaaka may chance yooyu yëpp ci làmb ji comme li ma wax léegi rek làmb ji mooy maa moom. abi suble génn suñu diggante ñu jëflante bu baax baax ñëpp kontaan incha allah. yaat ma seen news yaat ma seen news yaat ma seen news xaaral xaaral. gars yi mu gaaw waay ah. na gaaw na gaaw. waaw moom làmb moom. nii moo am rek. lam moom li mu am rek mbër bi da nga koy jëli mbër bi nga daje moom mbër bi mu jël ci la ñett yooyu ñu am waaye dafa ñun boo xoolee dañu dañ ci keppaaru ñëw nii am suñu papa am sama papa Pape Diop Boston am sama papa Pierre de am sama papa Pala am sama papa am sama papa am ñoo xamante ni ñoo ma ci làmb donc nag li ñu yóbbu ci géew ba nag loolu ñun la kooteel na suñuy bagage bopp la loolu bàyyi leen ko muy booy ñaa dañu tàmbaloon sa combat Sa Thiès nga ne bu jeexee jeex na contre Tapha Tine bi lan la lan mooy slogan bi waaw war naa leen ko nee naa ñool tab moo gën gësam ñor taat moo gën gësam ah. waaw ñor taat bi moo gën gësam même mango bu bu ñor boppam lekk koo gën a neex boo gësam mu wadd non Mansour Diop du jëri kii sama waaw boo xoolee Mansour Diop ak De Gaulle De Gaulle dem na sax ba dañ koy wax De Gaulle Diop ndax Mansour Diop ak ñoom Pape Diop Boston waaw donc loolu démb la daal ñu ñoo ma juddul ñoo ma yar donc su ma amee bis nag fépp fu ñu nekk dañuy mën a ñëw toog balaa may jàllale maa ngi maa ngi jégalu encore ñu taxaw ni bu ci nekk ci ginnaaw bi waaw di jégalu bu baax a baax a baax a baax incha